حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله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 yaa himmata seyxi waduri lanaa bi hadal mahdar wal taati fi bi nasratin taati lanaa bi safar bokki jullit yi bokk yi topp Paradise TV ñi ngi leen di nuyu ci fajari fajari yàlla ju tedd jile ànd ak téere bi yàlla bu tedd bile muy alquranul karim seen mbokk la Baye Mokhtar Touré ci tafsir bi fii ci Paradise TV insha allahu ñi ngi ci suratu baqara jataay bi paase biñ koy yëkkati ñi ngi dooree woon ci ñi ngi yemoon ci walillahi masriq wal maghrib mooy aaya bi nga xam ne yàlla daf doon jàngale euh, topp ndigal bay tere yonent bi sallallahu alayhi wa alihi dafa jógee màkka ñëw medina ànd ak yahuud yi di jublu baytul maqdis bu ñuy julli mu ñaan yàlla yàlla nangu ñaan nga ne ko léegi toonal nga jublu màkk yahuud yi nag toon googu dafa yàqoon ci ñoom lu bari ci seen pas-pas ñu koy saboote ci loolu yàlla xamal leen ne penku bi maa moom soxu bi maako moom te fu ngeen jublu rek fa yàlla nga fa maanaam jubluwaay bi mu am solo waaw duwut sëgg ak siggi du loolu sëgg ak siggi bi ak sujjóot bi ak yotlante yi du loolu jubluwaay bi la yow la li ngay def danga ci jublu boo ne allahu akbar am na loo wax am na maqaama moo taxaw waaw soo sëggee ne allahu na maqaama moo oote soo siggee ne sami allahu liman hamidu am na maqaama moo oote boo ne allahu akbar supp sa jëbi am na maqaama moo oote boo ne assalaamu aleykum wa rahmatullah am na maqaama moo oote muy juróomi maqaam tolloog juróomi ponki islaam yi juróomi julli kon jubluwaay boobu lañ soxla ci mbir mi waaye bu dee jëmmi yàlla ji la foo nekk rek ma nga fa wa huwa maakum haysu ma kuntum yàlla ne wa maa kunna xaayibiina man yàlla duuma xaybu keneen ay xaybu xanaa waaye man du man de man de du yàlla duuma xaybu man dewuma fenn kon nag euh, teggi ni sariante sax moo ñu jox di julli jublu ca kaaba ga waaye buñ demoon dëgg-dëgg ci xam-xamu maarifatu billaahi kon foo jublu so julle mu bax ndax fo jublu rek ndem yalla la tax di julle rek jëm yalla jang waye sariatu nak moy islam iman ihsan dafa am ben bu ci nek dang ko wara jox akam kon sariatu lum ñu wax moy nañ jublu ca kaaba non la ko waxee woon yonent yalla muhammad suma borom neena na mom penku bi mom sohu bi fu ngeen jublu rek jëm yalla jang fa kon nak kaaba ga ngok Mm-hmm. alquran nee na waskur fi kitaabi maryama isin tabasat min ahliha makaanan sarqiya soo gisee soo gisee yahuud di jublu ca uh, uh, soo gisee uh, nasaraan di jublu ci sarqu baytul maqdis mooy maryama fala doon sangoo ba xeesaa ganee fa ñoom ca penku baytul maqdis la ñuy jublu ñoom nasaraan lu tax yowóor di jublu ca sow ba wa ma kunta bi jaanibil bi yontu yàlla Muusa mu ngi doon jéeyaaleeg boromam ca soxu doj wa ca soxu néeg ba baytul maqdis ca soxu ba moo tax ñoom itam foofu la ñuy jublu ah bi bi mu ñëwee ànd ak ñoom dafa jublu waaw waaye gannaaw gi yàlla na ko nag yow itam ngay jublu ca kaaba ga waaw waaye yàlla moom duwut dafa gën a nekk barab ci barab jëf jëñ jëfoon mooy jublu ca baytul maqadis julli yooya ak julli yeñ julli woon jublu ko màkk yépp yàlla nangu na ko ndax yàlla leen taxoon di def mooy yonent bi ak ñi ànd moom te loole rek lañ soxla ci jëf ji jëf moom bu yàlla taxee rek yàlla dana ko nangu yàlla gënta nekk barab ci barab yént yàlla maamar wax nañ la ne éeg na ci asamaani benn ba juróom-ñaar dem na dem kursiyu bam demee jege na yàlla gën naa jege yàlla danaa fata dalla yàlla wax yu ko yàlla wax yu ko yunusa yunusa alayhi salaam lab na ca ndox ma jën wa wann ko jën woo weneen jën wan na ko te ba muy wax ak yàlla daf ko ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adalimin laa ilaha illa anta yow yàlla déglul de yoonu sànq biit jën jën woo wan na ko kon ndox ma wan na ko jën woo wan na ko jën woo weneen jën wan na ko loolu du ñetti lëndëm hmm? waaye terewut yoonu sa mu nga naan laa ilaha illa anta kenn du yàlla ku du di yow ndax yow man nga ko wax ku fa nekkut kon yoonusu ca biir jën wa ca biir ndox ma mu ngay wax yàlla yow yontu yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa alihi ca kaw asamaani juróom-ñaar ca kaw xarasa kursi yu moom itam jege na yàlla ba dan naa fata dal la hmm? kon wa fi samaay illaawun wa fi ardi illaawun hmm? yàlla duñ ko wutal barab duñ ko wutal makkaan amut ko amul makkaan xaju ci makkaan place xajut ci barab wasiha kursiyyuhu samaawaati wal ard samaawaati wal arda kursi yub yàlla bi moo ëpp asamaan suuf kon fuñ ko sëpp waxagul yàlla de toogu bi la wax ci ayatul kursi yu yàlla mu ne wasiha kursiyuhu samaawaati wal arda toogu bi moo ëpp asamaan ak suuf kon fuñ ko sëpp loolu ma la xamal na la yàlla duñ ko utal barab waaw amul makaan wa huwa maakum haysu ma kuntum kon nag su yonent bi jubloo màkka ñoom ñuy kii euh, ñoom dañoo xamul rek waaye bu ñu xamoon duñu wax loolu xamoon duñu wax loolu de mangoog kaaba gi dëgg dëgg dëgg mooy jëmmi yàlla kaaba dëgg mooy jëmmi yàlla aarifine bi laay xam nañ ci dara ne kaaba gi dëgg dëgg dëgg mooy jëmmi yàlla ji walla mooy xàqu bi waaw kooku ngay jublu mu fajal la sa soxla ci ci tawhid inna allaha waasiun sama borom wax nañ ñoom yahood yi ñu xam na allahu yàlla wala dan doom subhaanahu wa sell ñeel na yàlla doomi lan ba li fi nekk lahoo ñeel na yàlla maa fi samaawaati lépp lu nekk ci asamaani juróom-yaar wala ardi ak suufi juróom-yaar lépp yàlla la ñeel mulkoog malakoot kullun kullun képp ci ñoom ñi dëkkee asamaan ak suuf xaanitoona way topp lañ la wa ñeel yàlla de kullun lahu xaanituun ñoom ñépp a koy topp mooy mu neex leen mu naqadi leen mooy nga xam nooy toppee yàlla ak nga xam nooy ñàkkaa toppee yàlla yëpp ñoom ñëpp yàlla lañ ñaal te mooy ñaari government yi mooy mulk ak malakoot waaw kon kullun lahu xaanituun fent na badiyon bind na badiyon door na badiyon créé na asamawaati asamaani juróom-yaar moom yàlla wala ardi ak suufi juróom-yaar wa isaa xaddaa bu nammee dogal amran mbir fa innama yaqul dana mu wax loo ñeel mbir ma kun nekkal fa yëkkoonu mu nekk de borom bi tabaraka wa taala ñaari nguur yu am doole yi muy mulkoog malakoot moom la ñeexal asamaan si ak suuf si mul koog malakoot yàlla la ñaal moom mooy seen wajtamaa moo leen téye ñoom ñaar asamaan ak suuf waaw moo leen téye ñoom ñaar moom la ñaal waaw waxaala wax na àll si ne nga xam ne laa yëx la moon a xamuñ yéwéeri màkka yi ñi weddi ñi nga naan lawlaa yukkali kalimunaa lu tax waxut ak ñun allahu yàlla lu tax yàlla waxut ñu ne yow yónnentu lu tax yàlla waxut ñu ne yow yónnentu nga waaye waaye boo ñëwee yow muhammadu naan ñi man yàllaa ma yónni yàlla ma yónni yàlla war naa wax ñun ñu dégg ko mu ne ndaw loolu muhammadu moomu yónnentu la lu tax yàlla deful loolu aw taatinaa wala dikkee ñu aayatun kawtéef lu tax yàlla isiwut ñu miracle yow waroon nga léeg-léeg bu la neexee nga naaw ñi lay gis ah waroon nga léeg-léeg boo taxawee safara di génn ci sa gémmiñ gi ñi hmm? ko njabeerkat di defee ñi door a mën a xam ne yàlla la yónni aw taatinaa aayatun sama borom ne kasaalika noonu waa màkka waxee qaala la waxi allazina gaa ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon xéeféer yi jiitu woon itam misla qawlihim kam wax jooju rek tasaabahat niroo na xuloobuum seen xol yi lu lu bokk fay niroo seen xol yi ñoo niroo moo tax seen kàddu yi niroo waaw xad bayan naa leeral ne ñun yàlla al ayaati kaawteef yi li xawmin ñeel ñi xam ne yuqinoon am nañ yëqiin borom bi tabaraka wa taala nee na waa Makka wax nañ ne yént yàlla Muhammadu lu tax yàlla waxut ak ñun nañu yónnentu nga ñi gëm la wala mu wàccee miracle bu ñu mën a tegtal ne yow yónnentu nga ñi gëm la yàlla ne ndaxam wax jooju de ñe ñe ñeneen jiitu woon itam te yónnentu ya xeetu njëkk yi ñoom tam wax jooju la ñu waxoon seen yónnentu ya waaye yàlla ne seen xol yi ñoo niroom moo tax lu niroo rek lu lu bokk day niroo ñoo bokk xol moo tax ñu niroo luñ wax tasaabahat qulubuhum waaye yàlla nee na man leeral na mbir yi de kawteef am na doy na ci kawteef rek mooy sa bopp kan mooy wax ci yow kan mooy xool ci yow kan mooy dox ci yow kan mooy dégg ci yow hmm? kan moo lay nelawloo kan moo lay kan mooy dund ci yow loolu rek doyoon na miracle waay lii rek doyoon na miracle balaa ngaa wax ñi taalal la safara mu génn wala ñu daqotil la weer wi walla ñu génneel la gëlëm ci doj wi nañ ko waxee woon saaliwu wa fi anfusikum afala tubsiroon wa fi anfusikum afala tubsiroon ay yàlla boo ko xooloon ci sa bopp soo amoon ndimbal boo ko xoolee ci sa bopp rek gis ko soo amoon ndimbal ñu ndimbal lañ manqué ñu bari ndimbal lañ man waaw yàlla nañu yàlla dimbal ku am ndimbalal yàlla yàlla doo ko wuti fenn ci sa bopp nga koy ut xad bayat naa leeral nañ al ayaati li qawmin yuqinoon waaw mangoo kon niti yàlla niti yàlla yàlla daf koy dafay daf koy yóbbu ci nite dafay jël nite jël jël ay sew-sew muuree ko ko ba nga xam ne ki war a jëriñu ci moom du mën a jëriñu ci moom yent yàlla mat juddu na ana baay ja faatu na booba juddoogut sax ana ana yaay ja amina ana maam ja ñi ko waroon na protég yëpp dem nañ eh, ndey sa ana alal ja amu dara waaw daanaka mën nañoo wax yalla ko bëgg dimbalé bolé ko soxna Khadija de nga waye mu ngi ci mbedd mi and ak ñoom Bilaal ñoom Ammaar ñu New doole ñooñu de nga kira yoyu taxon na gaay di ko lasta mursalan yoni wul la yow yaangi ni ya amula dara yow njabeer kan nga yow da nga amé rab de nga limo wax tay wut ko rabako koy wax lo de nga lu nekk wax nañ ko ndax xeeb ko ndax macha allah dañ ko xeeb dañ ko xeeb wa Makka dañ ko ma bu tànnoon ponkal yi mel ni aboo jëlin yónni leen ci jamono booba ay konoon ñoom ñëpp ay daw ñëw li parce que ponkal la waaye dafay tànn koo xam ne ñoom ñëpp bàyyi wuñ ko woon xel sax fooguñ woon ne affaire bi dana dem ci moom sax mu dugal fa secret mu nekk xàqu bi buñ amul chance rek duñ fa dugg ba léegi fi maa wax ak yow nii xàqu bi fi ko yàlla di def soo góorgóorlu doo fa egg ndax li la koy iir niteem gi daf la koy iir benn mu ñàkk wala euh, moom daal il faut mu am ay kàddu sax yoo xam ne bu ko yëkkatee nga jaxasoo moom daal il faut mu am yoo xam ne eh, yëfi nite yonent yàlla Muhammad ñu àndoon ak moom léeg-léeg nga dégg ku toog rek xam nga ne mas nañoo séddale benn màng gars yi ne ko eh, am na mbàjj mbàjj guñ gisut ñu ne ko ñu ko saj seetal loolu waaw ah, seetal loolu yu garaaw yooyu doon xew ci yonent bi dégg nga ba léegi rek may xew ci ko xam ne xàqu la bu war a jaami yàlla yi une fois yàlla boole koog yoo xam ne nit ñi dañ ko koy xeebe waaw waaye da nga yurndu rek duggal rek nga yurndu nga seet bu boobaa di nga xam dëgg la wala du dëgg waaw bul gaaw a weddi weddi baaxul sama borom ne sama borom ne yàlla moo feeñoo asamaan ak suuf moo ko bind moo ko feeñoo moo ko moom lépp moom la ñeel mul koog malakoot waaw ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla nag nangu lu ngent yàlla muhammadu seen complain moy lu tax yàlla waxut ñu ne ab yonentoo ngi ñëw ci yéen wala muhammadu moom yonentu la lu tax waaw ah. aw taatiina ayatun wala mooy si ñu ay miracle yuy tegtale ne yónentu la wax jooju nag daf fee yàgg yàlla nee na seen xol yi ñoo niroo ñoom nit ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi ñoo niroo wax ndax dañoo niroo xol yow yow yonent yàlla muhammadu daal innaa ñun yàlla arsalnaaka yónni nañ la bil xaqi ci dëgg waaw bil xaq mbir ma nga làmboo dëgg bil xaq mbir ma nga ànd ak dëgg bil xaq mbir ma nga basiiran di bégle wa nasiiran di xuppe de basiiran di kontaan loo wa nasiiran di ragal loo wala tasal deefu laaj an ashaabil jahimi ci waa jahim waaw bu laajte mbiram jëhiim évéer yi lu leen teree gëm ba dugg safara bu ci sa yoon nekk man yàlla man la neex xam nga yow daal lool lan moo xewam dama laa jox xàqu bi rek na la demal yaa ko feeñoo léegi nag buñ nangoo ànd ak yow ngeen ñëw dem ci yàlla yàlla gërëm ku weddi nag yow bu ci sa yoon nekk xamal na yàlla la neex loolu mooy aaya bi maanaa aaya bi loolu la inna arsalnaaka bil haqqi basiran wa nasira waaye wala tasal an asaabi jahim ngi la weddi ba war a dem jahim du la ci dara waaw lasta alayhim bi musaytir mango kon yàlla yónni na yonent yàlla Muhammad jox ko xàqu wax naa la ne yàlla rek mooy xàqu waaye ab yonentu bu mu yónni yow yaay ñëw toogal fi yàlla yaay xàqu booba yow yaay nekk xàqu booba yaay nekk feeñu waay xàqu booba Yalla yalla la yonent bi ñewna na yalla ma yoni waye mo mo feeñoo haqu boba lutax parce que kuko top rek mu jox la haqu mu jox la deug moo mu nek inna arsalnaka bil haqq yow haqu rek nga yore deug rek basiran wa nasira basiran moy ku nangu haqu bi nasir moy ku bañ haqu bi basiran nga beglo nga kontaan loo ñi nangu xàqu bi danañ dem ba gis seen bopp ci biir te doomu aadama fu mu dem boppam la fay ut nasir mooy ñi bañ àqu bi beru dem fële waaye wala tasal an ashaabil jahim bàyyi leen rek ñi nekk ci seen weddi yàlla gi rek di weddi yonent yàlla muhammadu rek bàyyi leen rek sama borom nee na walantar daa du kontaan mooy du gërëm xan ka ci yow yonent yàlla muhammadu al yahudu yahud wala nasara du jaageen nasaraani hatta tatabia batañ toppee milatuum seen diina bata nga toppee hatta tatabia bata nga toppee milatuum seen diina de yàlla na ko booy ba nga bàyyi sa xel de yahood ak nasaraan ñoom du kontaan ci yow mukk lu dul da nga bàyyi sa diina ji ma la jox xaq bima la jox legi xaq bima wax ne mom la la jox foog nga baye ko rek ñew fekk len ci sen ci sen pas-pas ba ci lañu dogo contane ci yow waye lu dul loolu xamal na ñi ngi ci sa tanki lo deg ci lu ñaaw ñom la bay bo nga xam lolu walan tardahan ka yahud wal yahud wala nazara atata tabi'a millatu fokk nga fekk ci len rek ñu dor la nangul ñu dor la gëreem ñu dor contane ci yow waaye nag waroon na leen a doy ne yonent bi nangul na leen mooy gëm na yonent yàlla Iisaa gëm na yonent yàlla Muusa boo duggee ci biir jullit ñi fekk fi yonent Iisaa yu bari ñi tuddee leen te jullit da leen ko tuddee fekk fi Muusa yu bari te jullit ñi leen ko tuddee loolu waroon na leen a doy biir alquran fan fanweeri yoon yàllaa ngi tudd yonent yàlla euh, soxna si Mariam yonent yàlla Muusa moo ëpp xisa ci alquran lu yàlla di nettali mbiram te lu refe rek lay wax ci moom yonent yàlla Iisaa noonu loolu rafet rek la yàlla di wax ci moom waaye loolu kay waroon na leen a doy loolu waroon na leen a doy waaye ba tey dañoo continuer walan tarda an ka yahud yahudi wala nasara yàlla ne xataa tattabi'a millatahum nga balli nga nekk fekk ci leen rek mooy tax ñu kontaan ci yow te loolu xam nga du am yonent bi ko nangu xul wax leen yow yonent yàlla muhammadu na leen inal huda inna inna inna huda llaahi xul wax leen yow yonent yàlla muhammadu na leen innahu dallaayi naka njubam yàlla mii di lislaam wooma alhudaa mooy njub xàqu bii ñu jox mu moy dëgg wooma ah inna arsalnaaka lu mu ko wax inna arsalnaaka bil xaqi basiran wa nasira xàqu booba mooy dëgg qul innahu dallaayi naka xàqu bii ma jox la hm? xàqu bii ma jox la huwal huwal mooy mooy dëgg mooy njub mom rek mo meuna jubanti jambi tek ko ci yoon bam egg ci jëmm yalla ji bam egg ci ngërmande yàlla ba mu egg ci njub bam egg ci sunna qul innahu dallahi huwa huda yalla ne ko yow yent yalla muhammadu gaay duñ kontan ci yow lurut dang lena fekk ci bàyyi li nga nekkon waye wala init tabaxta wallahi ndem top nga len ndem top nga yow yent yalla muhammadu ahwaahum sen bànneex ya seen bugg-bugg ya ba nga bàyyi sa diina ji dem fekki leen ba dal la sii ca gannaaw la nga xam ne jaa aka dikkal na la ko minal elmi ci xam-xam te mooy wax yu maa la ka ñaalul la mina laay tukkee fa yàlla min walli yin ci ku lay wattu wala nasin wala ku lay tere mbugalam yàlla mooy ku lay dimbale allahu akbar yàlla nee na yonent yàlla muhammadu gaa lay oo ñu ne nga bàyyi li nga nekk ñëw ci ñoom waaye boo bayee xàqu bi ma la jox dem topp leneen ci gannaaw bu dëgg gi leere xam-xam ñëw te mooy wax bi boo ëllëgee ci kanam yàlla ma làkka min allahi min waliyin wala nasirin xamut ku la mën a tere mos ci police mi ni xam nga ne lii jàngale la waaye yonti yàlla Muhammad moomut ko yonti yàlla Muhammad yàlla préparé na ko dimb balaa tey jox ko xàqu ne ko yóbbu ko kooku xam nga ne duur kuy bàyyi kuy bàyyi euh, dëgg gim nekk di dem di topp keneen waaye dafay jàngale ci xeet wi kuy dox di wut xàqu di ba yàlla wan la xàqu mooy jëmm joo xam ne boo ko toppee mu jox la jëmm yàlla ji koo xam ne du la wax lu dul yàlla àndal ak moom mu jox la sunna su wér kéng sunna soo xam ne na yonentu doon xoolee na yonentu doon waxee na yonentu doon jëfe te sunna boobu yombut de xam nga na yonentu doon jullee na yonentu doon ore génne asaka loolu moom ku ne xam na ne ñu ngi ko jàngale ci téere yi waaye na yonentu doon xoolee ji mu doon am ci jaami yàlla respect bi mu amoon ci nit ñi na yonentu doon déggee nam doon ak njabootam nga loola yombu de sunna boobu nag boole ko sunna julli sunna sunna génne asaka sunna yi nga xam ne nii noonu la ko yonentu doon defee soo doxee ba gis ku la ko mën a jox ñii la koy yàqal di la xupp di la pour nga bàyyi ko su boobaa yow gisuma la mbaaw li gaay la wax yow moom yàqu nga tuddutoo defeeru mukk maa lakka min allaahi min waliin wala nasirin yow yàqu nga tuddutoo defeeru mukk moo tax yàlla ne yonent yàlla Muhammad wala ini tabaxta laay boo toppee ah, waa om um, bànneexi eh, eh, seen bànneexi bakkani seen nafsu fujóor bi nga xam ne fa alhamaha fujooraha ñoom ñi wa taqwaha ñi bàyyi fa taqwaa dem ci fujóor nga xam ne topp seen bakkan bañ oola ca lañ nekk nga sànni li ma la jox mooy wahyu gi mooy bada lazi jaaka min al xilmi li ma a jox nga bàyyi ko maa làkk min allahi min waliin wala wala nasir yàqu nga te dootoo baaxati mukk te yonent yàlla Muhammad baaxoon na balaa tey te mooy ki nga xam ne mooy ràmm jaam ñi ëllëg kon moomul wax ji kon moomul wax ji wax ji ko moom mooy ñun ñun ñoo moom wax ji mooy ku ci ku ci gis dëgg moyal ci dëgg gi ci am ay lënt-lënt xam nga ne am nga lënt demal uti xàqu boo xam ne moo lay tekki lënt lënt nga bañ a dund ci lënt lënt boobu kooku dana la jox sariha jox la tariqa jox la xaqiqa wala mu jox la islam jox la iman jox la ihsan nga boole yëpp nekk seen mutazahir téye ko mu wér keng nga noppale ko bul nangu kenn ku la ko yàqal tiraanga nag mën nga ko jox ku la neex koo masa ànd rek mën nga ko jox tiraanga waaye xàq moom fa mu nekk rek la nekk demal nga wuti loolu la alquran di wax yonti yàlla te kon moomul wax ji ñun ñoo ko moom sama borom ne allazina gaa nga xam ne aataynaahum jox na leen al kitaaba téere yat loonu xoo danañu jàng téere ba xaqa tilaawati dëgg-dëgg jàng walaayika ñooñu yuminuun danañu gëm bii ci téere ba wala bii ci yonti yàlla muhammad wa man yakfur ku wét na bii ci alquran wala yonti yàlla muhammad fa walaayika ñooñu hum ñoom alxaasiroon ñu ma di way perte de borom bi tabaraka wa taala nee ñi jot a am téere ci yowoot ak nasaraan te jàng ko dëgg-dëgg jàng lan mooy dëgg-dëgg jàng jàng alquran dëgg-dëgg jàng jàng tawraat dëgg-dëgg jàng jàng linjiil muy bible bi dëgg-dëgg jàng yombut jàng ko ak jàng ko dëgg-dëgg jàng du benn waaw alquran dañ koy jàng waaye dañ koy jàng dëgg-dëgg jàng ki koy jàng mooy ñu ko jàng mokkal ko ci daara ja ki koy jàng mooy ki nga xam ne ngoon gu ñet bu xëyee wala suba gu nekk ngoon gu ne bu gontee wala suba gu ne bu xëyee dina jàng ay hisib kooku mu koy jàng waaye jàng ko dëgg-dëgg jàng mooy nga jàng ko ci sa bopp yàlla mi lay tudd ak yonent mi lay tudd ak feeñuwaay yi mu lay tudd yëpp nga gis ko ci sa bopp sa nurihum ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim su la lépp lum la wan ci afaaq bi muy gox yi mu wan la ko ci seen bopp lu la wan ci afaaq bi ci ci mu war la ko ci sa bopp nga gis ko ci sa bopp koku mo jang téré bi deug deug jang kon yalla nee na ña jàngoon tawraat deug dëgg jàng mel ne abdullah bun salaam ña jàngoon liin deug dëgg dëgg jàng hmm? ñooñu ñoom bi alquran ñewé rek nangu nañ ñom bu àq bi toxolé rek toxo rek ñu top ko waye ku jangu deug deug jang moy ki nga xam limi jang deggul ko ci bopam koku bu bi toxolé toxo toxo du ko nangu fay bañ bu yonti yalla ma ma ñewé rek mu bañ fam musa fi nangu ko Insa ñëw ñu bañ Insa dem Muhammad ñëw mu yonent yàlla Muhammad ñëw ñu bañ loolu dafay dal ñooñ islam ci weddiwante bi gis nga ko euh, ba léegi fi may wax a yow jamono boo xamee ne xàqu feeñ na su waxee ngi ne déedéet du moom te fekk moom dëgg rek la yore kon yàlla nee na ñi jàng téere bi dëgg-dëgg jàng dëgg-dëgg jàng nag du wut lu yomb de du ko mokkal ci daara rek jàng nga ko dëgg-dëgg jàng du ko firi rek jàng nga ko dëgg-dëgg jàng waaye ki ko gis ci boppam kooku moo ko jàng dëgg-dëgg jàng kon ñi ngi ñuy suñ taayam jeex na ci fajar ju tedd ji kon ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala di yeewal foofu insha allah buñ dellu si waatee dinañ continuer ak yéen ci aaya bi borom bi dewaan allazina aataynaahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilaawatihi sadaqa allahu alazim wa balaqa rasuluhu nabil mustafa alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa mawlana min ashahidin yal nañu yàlla wan dëgg dimbale ñu ñu topp dëgg yal nañu yàlla wan caaxaan te dimbale ñu ñu moytu caaxaan alquran a ngoog yal na nekk suñ suñ suñu royukaay yal na nekk suñu looya bi ñuy layal bu ëllëgee ci kanam yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah